ngir booba buur yaa ngi koy xaccoog sëriñ si ak tubaab yi naa ko merci addina ak laaxira far di ko ku ne na ko jëlle man sama goro baxaali moom jaxate ko irkan jàngal te jublu bunte buur yi cay kon bismillahi rahmaani taala wa mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéenay bàyyi xel suñu télévision Touba TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu ànd ngeen di ànd ak ñun mbokk yi tey jii nag ñu fas yéene ñëw ak yéen ni ñu ko baaxoo defee ci jataay yi la ñu génn tànn genn xasida ci xasida yi Serigne Touba yi ngir waxtaan ci ak mbokki taalibe yi waaye dalal ci nag koo xamante ne bi itam danañ ci seq ak moom ay laaj ak i tontu ngir lépp loo xamante ne bii. Euh, wala lu bëri bokk loo xamante ni mënees na ko cee leeral ñu mën ko cee leeral euh, kooku nag dootuñu leen ko présenté ndax yàgg nañoo seq ay jataay waaye itam muy ko xam ne saa su ñu tuddee xasida yi wala ñu tudd euh, waxtaan wu jëm ci Serigne Touba Cheikhul Khadim du ma ne xel yëpp waaye xel yu bëri dana dem ci moom ndax loolu rek mooy mbiram mooy yitteem mu di Serigne Gana Messere Muxtaar tey ji nag ñu fas yéene waxtaanee ci ñaari xaalo yi nga xamante ni bii ku tedd ki Serigne Touba Bamba bindoon na ko. waaye eh, jamono ji ñu koy waxtaane itam di jamonoom aa danañ ci ñëw bu baax a baax waaye laataa ñuy sori du ñu def rek lu bàyyi Serigne gànn su ko defee mu nuyu nag mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñooy bàyyi xel jamono ji suñu télévision Touba TV su ko defee nak ñu soog a ñëw ci yeneen poñ yi nga xamante ne bi tey daañu ko faram-fàcce ci biir xasida yi aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokki jullit yi ñuy seetaan ak ñuy déglu fu ñu mën a nekk ñoo ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen nuyu di leen ziar ci jataay bu solo bi nga xam ne dañu ko seq ak sunu mbokk Serigne Mor joxaane ci béréb bu baax bu sell bi di Touba TV ci fas yéene waxtaane lenn ci eh, xasida ay tomb yoo xam ne dinañ ko ci waxtaane di ñaanal nag eh, ki fi Serigne sunu borom teg mu tam nekk ci bopp njabootu Cheikhul Khadim di a cheikh Mouhamadul Muntaqa moom cheikh Mouhamadul Bachir di ñaanal yàlla suñu borom degeeral ko te kattanal ko te wiral ko ba naal yeek yene yi mu yene yep ci liggéeyal ko cheikhul khadim mu defee ko ni ko bëggee ci barke Cheikh Amadou Bamba di nuyu bokk yi nga xamne ñom lañu fekk ci jotaay bi inshallah incha serigne jërëjëf sëriñ Gana ñukoy gëreem bu baaxa baax wax nañ ko legi ci ndortali tay ñu fas yéene waxtaan ci ay khassida yo xamantene bi euh ku tedd ki di serigne touba Cheikh Ahmad Bamba moko ko baaxee jaam ñi muy fajug ajo tey ak ëllëg waaye ñu mën a see jàngate itam lu bëree bëri rawatina njariñul biir yi nga xamante ne bi mi ngi ci muy xaaloo li yarkan li ab waa bi li ab waa bi sa tox nii kullama xiini ak xaaloo safiun di ñaari xasida yooyu قالوا waaye laata ñëw ci xaaloo safiun ñu ñëw ci xaaloo li yarkan muy xasida goo xamante ne bi lu bëree ngi ci biir waaye laataa ñuy xuus ci euh, li ci biir ak soññe yu am solo yi nga xamante ne bi ku tedd ki def na ko ci euh, ñaare bu ñuy faral di jàngat euh, ñu bëri mm, am mbind wala lu mel ne xeeti woy yi muy xasida wala taalif dañuy faral di ñëw ci contexte bi maanaam jamono yi nga xamante ne bi ci la ku tedd ki di bind lan moo xewoon wala euh, lan moo newoon ci jamono jooju euh, ñi soog a dugg nag ci dëgg-dëgg yi nga xamante ne bi xëy na mi ngi ci biir xasida gi waaye kon jamono yi nga xamante ne bi ci la ko sëriñ bii bind ci la ñuy bëgg a njëkk a ñëw sëriñ gànn ubbee ko waxtaan wi. jërëjëf sëriñ Mor xasida gii di xaaloo leerkan ak xaaloo safiix mm-hmm. dañuy ñaari xasida yoo xam ne. Mm-hmm. waxtu wu nekk dafay yàlla di jaadu ñu di ko fàttalante di ko jàllale ci jataay yi ak di ko jàngal taalibe bi ak ñenn ndax mooy position sañ Tuubaa position bi mu féetee te waxtu wu nekk rek xasida gi day répété wu di yees di wone taxawaay bi war du sëñ bi rek ndax bu koy wax dafay mel ni moom sa fegu na ci da fay am ñu mu concerné xam te dafa melni ni jamono bobu mu ko doon waxe ñewna mu nekkon jamono bu jafe na xam nga señ bi dafa dund ci ci ci jamono yu metti yo xam mo waxal na bopam na bahtukum maan ala kaddin bada li khablan ara ridan ma bada jekk ngeen di gis ngeeramul yalla lay xéewal yi fi man ay coonaa ko jitu yoy da cey tektale rek jamono bi nga xamé ni nii nañu mbakk jóge nañu poroxaan te ñew patar. foofu doon doon na fi doy rek tuuti mooy xam nga sëñ bi waxtu woowu dana am lu mu yittewoo koo xam ne egg na ci yittewoo ñetti dërëm ngir ay téere yoo xam ne naar bi ñuy wax euh, Serif Assane moo ko ko bindaloon sëñ bi war ko koo jox am at nga xam ne jàppandiwul ba sëñ bi bindal boppam kaamil ànd ak maam Thierno Ibrahim ak Cheikh Massamba Diop Sam di wër Kajoor ak Bawal ngir bëgg a jaay téere bi ngir bu ca wecc ko bu jaree mu mën cee fay ñetti dërëm yooyee nga xam ne egg na ci ba wax ju ju ju ju ne sax juddoo na ci ak reetaan mm-hmm. waaye taxul sëñ bi loola pas-pas bu dëgër bi mu am mm-hmm. waaye teewul ba ñetti dërëm yi ñëwee it dafa daal di joxe ko rek te delluwaat ci sant borom mm-hmm. eh, teewul bi mu ñëwee bi mu ñëwee loolu amee it ñu jógee ñu jógee paataar it ñëw Mbakke Kajoor nga xam ne booba sëñ Mor Anta dafay ànd ak xaad yi dafa nekkoon xaad yi eh, Lat Joor teewul it jafe-jafe yooyu day wëy ndax sëñ bi am na jamono boo xam ne bidaayatul hidaaya bu imaamul Ghazali bi bi mu koy wut ci Saalum ab dërëm la la ko la ko jëndee waaye dërëm bi jàpp ni wutoon mm-hmm. xam ne sëñ bi mbubbam la joxe sax ngir jot ci jot ci kii boobu kon nga xam ne bi ko sëñ bi wax mm-hmm. daf ko fekk ci ay ay ay jafe-jafe yu metti mm-hmm. fekk ko ci bu bëggee dara sax du jàpp te téewul booba waxuma la bi muy def xaside gi waaye waxtu woowu maam Thierno mi àndoon ak moom sës ci boo ko masaa di yalwaan loo da koy wax ne ko wóori àdduna yi seen cóolooli cin yi wet gum jëm rek bu fa aw nga gis yim doon dégager jamono booba ci di ko sorilu nga xam ne waxtu wu nekkit daf daan jël sax ay bataaxal di ko teg ci yoon wi nga xam ne sëñ Mor Anta Sali dafay jaar wala mu ko def ci loon ngeganaayam ngir lan di ko xamal ne buur yi addu yi kat képp koo xam ne bokk naa ak ñoom seen tedd ngay adduna ji da nga bokk ak ñoom seen torox toroxteeg ëllëg yowmal xiyaamatu akbar waaye loolu lépp nag teewul way juróom nga fiy nekk mais li gën a yéeme mooy bi way juróom génnee adduna muy sëñ Mbàkke Mor Anta Sali jamono dëgër jamono jafe dañoo jàpp ne booba euh, détournement dana ma mën am ci tournée sëñ bi jëmee ko ci leneen moo tax keroog bi sëñ way juróom génnee àdduna euh, sëñ Mor Anta Sali mu génnee àdduna ca Mbàkke Kajoor ñu indi ko déqale denc ko keroog bi ñu ko dencee ba noppi sëñ Ahmadou Ndoumbé Mar Sill mu baax mu sell moom nga xam ne moo ko jullee woon taxawu ko daf ko wax ne ko nag noo ngi lay jaal sa way jur an Ahmadou Bamba boobu sëñ maa ngi ci ginnaaw mu ne ko noo ngi lay jaal sa way jur wi te bëggoon nag nu ànd dem ci buur bii fi nekk ki fi nekk ñu jaal ko sa way jur wi bu ko defee mu teg la béréb ba mu tegoon sa way jur nga féete ko fa ko sa way jur féete woon te xam naa loolu gisuma ci lu may aw yiw xam naa it dana dana dana làmboo ay njëriñ dana baax sëñ bi ne ko noo ngi lay ci teggi nii noo ngi sant nag bu baax di leen gërëm ci jëm mi euh, njaal mi ak taxaw gi ndax lu war la waaye nag dox jëm ci benn buur nag malaaka yi di seere ni Ahmadou ngi jëm ci ku dul boromam. Mhm. loolu naa ah, kon mooy li ma doon ah, wax léegi ci ah. ndorteel ci contexte boobu kon. la sëriñ bi bindee xasida bindee xasida. aoudu billahi min ashaytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim qaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxus jawaïsa toxni kullama xiini léegi nag ñu ñëw ci biir xasida gi ak euh, ni nga xamante ne bi noonu la tontu léegi nag loolu bi amee euh, mhm. kon moo waral xasida gi am te ci biir xasida gi wax na ci moom jubluwaay bi ci nekk ak lim ci bëgg lem waaye léegi loolu ba mu amee mhm. dafa wax ne te moom moo wax ne kon wax nañ ko mhm. moom jëmmi sëñ bi ci boppam moo wax ne wax nañ ko ndax bu fekkoon ne dana wax nañ rek waaye dana xaalu liyal xaalu liyar kan قالوا ليرتن لأب وبالشلاتين لكل معين لأبواب السلاطين demal ba noppi wax ko ca nag la ca war a juddoo irkan jàngal demal li abwaabi salatin ci bunti buur ya kaawus jawaïsa mm-hmm. da nga am ay cadeau ay mm-hmm. payoor ay neexal yoo xam ne tuux nii kulla maa xiini kaawus jawaïsa tuux nii kulla maa xiini mm-hmm. dana la soutenir féete la fépp waxtu wu ne boo ca demee daal ak jafe-jafe yii ne ci wetu wuur bi lu lu wadd nga for dana baax ci yow kon jafe-jafe yi ngay dund ak coono yi ngay dund da ci mën a génn kaawus jawaïsa tuux nii kulla maa xiini fa qultu hasbiya rabbi waktafaytu bihi wa lastu raadiya gayra al-ilmi wa diini. dégg ngeen dégg nga xam nga dégg nga loolu waaw ah, mu ne fa qultu hasbiya rabbi fa qultu ma ne leen hasbiya rabbi yàlla doy na ma waaye yàlla dana la doy te doo ko doyloo waaye waktafaytu bihi yàlla doy na ma doyloo naa ko wa lastu raadiya gayra al-ilmi wa diini. baxaali moom jaxate naa ko irkan. jàngal te jublu bunti buuri cey bamba naa ko asbiyal ilaahu daaran wala ilaa illa laahu aw ma lu may gërëm aw ma lu may bëgg aw ma lu may sàkk lu may ñaar muy diine ak xam-xam diine ak xam-xam wala su raadiya xayral almi wa diin aw ma genn bëgg man ahmadou bamba aw ma dara lu may sàkku man ahmadou bamba lu dul xam-xam ak diine dégg nga waykat ba ba mu koy wax ci wala dane ba qaadi mam jaxate naan ko irkan jangal te jublu wori cey kon ba xooli mom njaxate ko irkan jangal te jublu hon te wóor kon cheikh ban bana ko asbiyal dahran wala ilaha illallah cheikh ban banan hasbiyal ilahu dahran wala ilaha illallah man yalla doy to ma te doyloo naa jangan aku, indakum yen fadu jàng naa kan bamba ko tontu won wa anta xaadi lolou cheikh Moussa Ka wax waaye gis nga lam ca mu ne kon wala suraat yi xayri almi diin aw ma genn bëgg genn càkkutéef lu dul xam-xam ak diine jàngal ma saaroo ndekon doo jeng bijaayi taalaay xanaa yow xalamoo laa tarkanu ila lasina salamoo xaaloo li yarkan mooy jawaabi xaali bambaa ko wa anta xaali léegi nag ku dégagé lu mel nii am na lu lay xaar mooy dana ay menace dana am ay tiital dana ay njàq dana ay wax mu ne nag wala su arju andi position am wala su arju wala axsha siwa maliki li annahu jalla yugnii nii wa yunjii nii tontu na lu jëkk la wala su arju du ma yaakaar mukk man wala axsha du ma ragal mukk siwa maliki ku dul sama borom muy yàlla lu tax du yaakaar kenn wala ma ragal kenn ku dul yàlla li annahu jalla moom yàlla mu mag moomee yugnii nii moo may woomalal bu ma ñàkkee yàlla may woomalal bu ma nekkee ci njàqare wala ma bëgg ci jaaxale yun jii nii yàlla mooy muccal kon taxu jawaay si tux ni ku la maa xëy ni joojee moom yàlla la remplacé loola dal na yàlla moomee kat yux nii nii way yun jii nii bu fekkee maa ngi ci njàqare yàllaa mooy muccal bu fekkee ne bëgg naa am koom yàllaa mooy jox wala su arju wala aksa siwa maliki li annahu jalla yux nii nii nii wala su arju wala أغزى سوى مليكي لأنه جل يخليني وينجيني نخبر من ذلك أنا أفوض أحوالي liman ajazu an hali anfusihim ajisal masakini daf leen nan nan fan naka. lay fekke koo ni miskin lotte ci mbirum boppam bu ko moromum buuram tëkkoo na ngi lu mu xam ci jajj lu mu mën ci ñaan lu mu mën ci lu mu ràngoo ngir ku ko aar ak lu mu mucce ki lott ci boppam ba ni miskin lotte ci mën a faj yitte boppam ki ni lotte nan laay jëlee sama mbir man di ko ko lot di ko ko wékk ana ufawilu ahwali li man ajazu an xaali anfusim ajizal masakin ana ufawidu ahwali li man ajazu an xaali anfusihim ajizal masakin ñii ngeen may wax naa dem ci ñoom ni miskin tëlee mën a yor boppam mën a faj ay yitteem ni leen tëlee ci seen mbiri bopp mënuñu ko yor kon ku mënta yor sa bopp naay nan laay demee man ma man Ahmadou Bamba ca moom di ko jox sama bopp daan na aw kay fa yabaxasu nii xubbal mi ilaa jiwaari man la wala cheikh bëgg poñax mhm. bëgg koom mhm. bëgg payor, mhm. bëgg xaaliss bëgg am-am nan la may poussé ma dem fekk bour yi nga xamne seen ëtti ëtti shaytan la ma dem diko fréquenter lan mo may jaral loolu fa kay aw kay fa yama asuni xubbatu tam yi la nit ñi lu ñu wara a dégg la bëgg ala wuru la taxa tabbi ci lu haram bëgg ala wuru la taxa def lu jaaduwut bëgg ala wuru la taxaw taxaw foo wata taxaw moo tax sëñ bi ne aw kayfa fa yabaxadun yu hutan bëgg poñaxit ila jiwari man ña nga seen atti seytaane rek la in kuntu da hazanin aw kuntu da watarin daawtu dal ayni qabla rai wa shiini aw kuntu da watarin daawtu dal ayni qabla rai wa shiini bu ma jàqee wala ma am yitte kenn laay woo muy dal ayin xabla raa wa siin te mooy borom arash jërëjëf sëñ Gana bay woowu lu am solo la xam naa di nga ñëw sax ci maanaam yi dëgg-dëgg waaye boo xoolee Euh, foofu ci biir am na fi xeeti euh, ki démb rek wala démb sañ Jibril Ndaw mi ngi koy wax ci jataay bi nga xamante ne bi doon na ko amal ak Serigne Abo muy technique yu am solo bu ñu ko mënoon tuddee baat boobu ci wàllu woy daawatu sal ayni xabla raa i siini nga xam ne loolu ñaare ku mel ne man bu ko doon dégg rek mën naa bañ a xam lu mu ci jublu waaye tey jii mel na ne aras la ciy wax waaye dégg nga ni mu ko tënkee jiital baat bi tekki bi tekki bi muy am solo yoo xamante ne bi gannaaw maanaam yi sax euh, gannaaw maanaam bayit bi day am ay technique yu am solo yoo xamante ni ci wàllu woy ku tedd ki rek lañ ko mus sa gisee waaw loolu moom mooy mooy hmm. jekku gim jekku hmm. langue arabe ci nu mu ci bëgg a waxee hmm. man ko caa waxe nga xam ne au lieu que mu wax ne wax rek ne daawatu rabbal waaye déedéet dane sal ayn xabla raay wa chiini kamay woo mooy ka nga xam ne boo jëlee ayin teg ca raa teg ca siin muy arsh kookee laay woo man Cheikhul Khadim waaye ci wan waxtu laa koy woon in kuntu saa xasanin aw kuntu saa watar bu fekkee ne nekk naa ci njaqare wala ma nekk ca bëgg yitte waaye gis nga yitte ji day faju ndax ca ca waxtu yu yàgg rek alhamdulillahi lama xat xadaa watar yi min ba'di ma kuntu daa faqrin wa sa darar sant naa yàlla nag faj sama yitte xoolal diggante bi mu nekk in kuntu saa xasee ne in kuntu saa watari kon wane na ne luy xam na ne am na luy ñëw ci kanamam xam na ne dana diis xam ne dana metti waaye nee lu yàgg yàgg yàgg yàgg du ma gëstu mukk jëm ci wuri adduna yi wax sama yitte lu yàgg yàgg njàqare lu ma mën a gaar lu mbir diis diis ci man du ma wëlbatiku jëm ci ñoom bu ma amee jënn yitte daal yàlla laay woo ndax kat yàlla moom dafa wax ne inni xaribun ujibu daawata daa ida daani yàlla neen maa ngi sa wet jege saa yoo ma wooyee rek ma wuyu la sëñ Tuubaa na nag du dem dem di woy kenn ndax ka dem mooy kaay ma làq la ku la dóor ma dóor ko téyewul nu dóor la kaay ma làq la ku la dóor dóor ma téewul ñu dóor ko dóor la kaay nañ làqu ci ki nga xam ne ku ca làqu kenn du la dóor léegi kon au lieu may dem ci kenn di ko wax sama mbir naa dem ci yàlla mi nga xam ne mooy mooy borom alas yàlla moomee nag bi nee la yàlla moom lay jëm ginnaaw ne du dem ci wuur yi yàlla moomee nag waxul moo ay nu ladi laa shay'a yu'jizuhu wa huwa al-mukawwinu maa ashaa ay takwini mu ne yàlla mooy almuayin aji dimbalaa kon ba borom kattan ga aji baax ja مؤمن يخمن لا شيء يعجزه در در در در در لوتي موم يلا ان الله على كل شيء قدير يلا موي هو المكمل ما شاء إيه تكويني نيب مير مو يلا بغ مو ام نام نون لاي امي لو يلا بغ بروغرامي نام كو بغ لاي امي يلا مي ما لين دي واخ نك ني موم لاي وو موي كيغا خامن موي كون بي ووي كو تي دور المعان ميغا خامن خامن اياك نعبد واياك نستعين موم لا جام واي تي موم لا ني ديمانديكو يلا مومي لاي وو من إن شاء تعجيل أمر كان ذا عجل أو شاء تأجيله يبقى إلى الحين يلا مؤمن من الوحنة نبقى مير مم بقى قاول داي قاو تساسة نك إنما أمره إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون كن لب لم بقى مؤم داي أم وأنا بفكر إن دفع بقى نك أو شاء تأجيله يبقى إلى الحين كن لين ما يوانا منن دم bu fekkee ne yàlla moom programme na man Ahmadou Bamba li ma bëgg lépp danaa teg sama loxo faw loolu day ñëw bu bëggee mu gaaw léegi lay ñëw jooni jooni bu bëggul mu gaaw it yàggam yàggam day yeex waaye dana ñëw kon mi ngi leen di wax ne lii ma leen di wax ak yéen mën a góo leen koo dégg mën a góo leen koo xam ndax bisa nga ca kanam bisa nga ca kanam li may xëcc dana ñëw li may ñaan yàlla dana ma ko jox bu fekk ko neexee nag mu jox ma ko léegi waaye bu ko neexee waxtu wu ko soob ndax lépp mbir mu bëgg mu gaaw dana gaaw lépp mbir moo xam ne bëgg mu yeex moom mbir dana yeex أنا يا يلوم فلا تكثر ونقض لي إذ لست من فقدة الدنيا بمعظوم yow mi may yedd yeddeel gi moo andi ko bee am na ñu koy yedd xel mi dafa manqué ñii di ko dara ji ju toll nii kaay ci wetu buur bi di ko atteel mu la fam la tegoon nga mën am ay ay di lekk moyal mën a am addiye ju baax mën a am lu bàyyi ko ci béréb yu bare bari ku ne di yedd mu ne yaa man yow mi yedd fala tugzir wa naxasali bul bul bari li yeddeel yi bàyyil yedd yi islastu min faqadati dunia bi mahzuni ñàkk gii ma ñàkk adduna bëgg dara du ma ci jot bëgg dara di ko séntu mënu ko am aw ma ku ma defal dara aw fu ma ko mën a jëlee na ngeen xam ne jàquma ci tiituma ci sama ñàkk adduna gii jàquma ci ci leçon la boo xam ne ku ne war na ko jël ci ne lu la adduna gaar gaar lu mu dëgër dëgër lu mu metti metti metti laa tax a tiit ndax am na loo xam ne boo ko amee lu tax sëñ Tuubaa ne ne am gi ma am yàlla moo may fàtteloo wala si ñàkk gi ma ñàkk adduna lu aduna mu deugar deugar lu metti metti yow mu may yedd bay ñak gima ñak aduna dan in kana aybi zuhdun fi hutamihim fadhaka aibun nafisun laysa yukhzini in kana aybi zuhdun fi hutamihim fasaka aybun nafisun laysa yukhzini fofu la ko jexale dan bu fekke ne japp ngeen ne won gima won gina wuri adni ayib la ci man wan gi ma leen wan ginnaaw mm-hmm. in kaana zu uh, ayib yi zuhdun fi xotaabihimu wan gi ma wan ginnaaw seen poñe xiir yeeg seen alal yi bu fekkee ayib la fa zaaka ayibun na fii suñu lay si yox sin ku man daal léegi kon ayib a ngi noonu ju gànjare ayib a xam ne ju baax la ju mat ndax bàyyi la yàlla buggul wan ginnaaw la yàlla tere bu dekkee ayib waral ay xas ci man ak yeddeel jaral na ma man Ahmadou Bamba waaye bàyyi naa jublu yàlla bëgg te léegi loolu da nga gis ci àdduna gis nga xasida gi sëñ bi da position yi mu ci wax dañ koo wax demal kon proposition la mu gàntal ñu wax ko ca la cay xew mooy danga am ay payoor mu ne loolu taxumaa jóg yàlla am naa ko yàlla doy na ma doyloo naa yàlla aw ma génn bëgg nag lu dul xam-xam ak diine yu mel nii ne ku ko am wuur yi danañ la mere waaye ñii dagg wuur yi danañ la mere ndax nitu ko àdduna saa yoo ko attaqué wala même kuy ne ciy caaxaan saa yoo ko attaqué faw am ñu ne ña bokk ak moom la ñu ne faw ñu jóg jëm si ci yow kon sëñ Tuubaa léegi ñaar da koy xaar mooy léegi jéem nañ koo xëpp nanguwul des na ko jéem a mu ne leen wala su arjo wala ak sa si meliki na ngeen xam ne lu mën a xew nag ba addunay tukki yaakaaruma ku ma yàlla ragaluma ku may yàlla na ngeen xam ne it bu fekkee ne am naa lenn lu may bëgg wala ma am lenn lu may sàkku yàlla moomee laa koy woo daan leen nag waa bëgg poñax it am koom nu may jarale fekk ëtt bu yàlla rëdd na bu fa kenn jaar dama koo tere la muy araamal man ma doon koo xam ne maa war a mu nekk mu jëddit wala wuutu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bëggum poñe xëy ma yóbbu dem di fréquenter seen ëtt yooyu woon na ay wax sax parce que booba am na ca wuur yeeg ñu ne ba mu ne dem ci kër wuur yi kat day mel ni dem aw dem àll weñ dal ñii ne man kon maay dem àll yu kii ne kon maay weñ bi ci dal ñu di ci discuter ñoom ñaar am na ci jataay bu ñu dajeeg sëñ Tuubaa ci pire sax doon ci wax kii ne ko waaw léegi nañ ko woo bi sëñ bi ñëwee nuyu nuyoo leen ne ma fay jaaroon di leen kii rek bañ koy dañ ko proposé na ko léegi yëf yi atte ci xarab Samba Sadio ba yëf yi ci xewoon waaye baat bu am solo bi ba ci ñor rek mooy bañ dajee di waxtaan ñoom seen biir avant waxtaan dafay génn kii dana ko ñu ngi koy woo mu ñëw waaye ku ko daan am ndam waaye kenn mënu koo daan te lu ñëwee ba tontu leen tontom yu dal yëpp leen tontu ànd ak yar ak teggin mat gam mat dañoo nangu mu ne kon loolu du ma dara jëralu ma waaye nag mu ne nag ki kon ndeke ñii ñu jàpp ne boroomi doole lañ Sëñ Tuubaa ne duñ boroomi doole ndax ni ni ni miskin lotte ci mën a defal boppam dara noonu la lotte ci mën a defal seen bopp dara kon nag man ginnaaw ñoom mënaluñ seen bopp dara nan laay jëlee samay mbir man di ko ko wékk man daal na ngeen xam ne man Ahmadou Bamba bu ma nekkee ci njaqare wala ma am yitte ju ma bëgg borom arash laay woo yàlla rek laay woo waaye nag du ma wooyee yàlla moomee leen di xamal mooy aji dimbalaakoon bi nga xam ne mooy aji dimbale ci moom laa wéeru moom laa wakkiiru mépp mbir mu bëgg mu am loola dana am waaye bu nammee mu gaaw day gaaw bu nammee mu yeex day yeex yàlla moom i kat lépp lu mu bëgg mu am dana am waaye lu mu ne du amit kenn mënta tax loola am kon yàlla moomee ci laa wekkeerlu waaye na ngeen xam ne yéen bàyyi leen yedd yi bàyyi leen xas yi bàyyi leen tuuma yi won gi ma won ginnaaw wóor yi àdduna yi bu fekkee ne mooy sama gàcca bu fekkee mooy sama mooy sama sama néew doole fekkee mooy sama doye di ba tax awma adduna ñàkk gi adduna moom naqariwu ma man awma ci soxla man sëñ Tuubaa na ngeen xam ne loolu lu metti metti rek man amaluma benn yitte sama bëgg-bëgg daal na ngeen xam ne mooy jublu sama borom waaye ñàkk gi adduna moom bu fekkee ne jàpp ngeen ne ayib la ba ngeen may ŋàññi naan moom daa xeeb ñi fi newoon li muy woote bukkul bàyyi ma newoon ci wetu buur bi waaye nangam waaye in kaana aybi zuhdun fi xutamihimu fa daaka aybun nafisun laysa yuxzini jërëjëf sëñ Gana muy lu am solo loo xam ne yaakaar naa buñ fi yemoon rek waxuma sax doy ab jataay waaye ëpp na sax eh, benn jataay muy lu am solo loo xamante ne bi mënees na cee jàngate lu bëree bëri mënees na cee jàngate tamit ni mu ko waxee am gi mu amoon suñu borom ba noppi wóolu ko doyloo ko waaye yaakaar euh, suñu borom rek muy lu am solo ndax boo dee xool sax am na bayit wu nekk ci rum naa sukkaru lës yi xaw naa nuroo sa wax ji muy fi mu wax katabtu fil bahri anni la amud yadi ila nasara abidil ma i wa tiini eh, nga xam ne moom lu bëri rek ci ay waxam day feeñ doyloo gi mu doyloo woon suñu borom waaye bañ sàkku lenn ci kenn ku dul suñ borom loolu yaakaar naa lu am solo la léegi nag ñu ñëw ci geneen xasida gi nga xam ne moom lañ ko toftale muy xaaloo safihun qaalu safihun li sarfi anhumu basari wa raxbati an dawil asyaani fi lbashari qaalu safihun li sarfi anhumu basari wa raxbati an dawil asyaani fi lbashari nee nan man damaa doyadi nee nan sama xel dafa gàtt nee nan damaa wéradi lu ko waral li sarfi anhum mubashiri ngir ñak bokk ak ñom ay gis-gis ñom liñ gis moy fréquenté man lima gis moy ñak li a fréquenté ñak li a fréquenté gogu nak ñom ci leen gisé ne man dama bayadi kon liñ ko tuuma jiñ ko jëkk tek moy borom xel manki waxat ni qalu safihun li tafwidi ila maliki amri anil kawn fi safin wa fi kadar ñu ne ye sama xel daa ngir wéer gi ma wéer yàlla samay mbir gis na delu ci yàlla boromam li tafwidi ila malik amri anil kawni fii safin kadar qalu kadar li tafwidi ila maliki amri anil kawni fi safin wa fi كبر bu nexé bu sellee bu takké bu degeeré bu jafé lépp ma nga ci yàlla samay bagage yep wàcce naa ko suñu borom kon nak ñom nenañ man borom xel mu gàtt la ko doyadi la ngir wéer gi mbir sama yàlla خالو سفيه لكوني لم أخف أحدا وما رجوت سوى الرحمن ذي قدر نانا نيوم سما مخل دا غات نانا نيوم دما وردي لوكا ورال نانا رجل مكوما يالا خالو صفيح لكون لم أخف أحدا رجل مكن كن قالوا سفيه لحبي خالقي ملكي ولم اكن للبرايا اشتكي ضرري qaalu safihun li kawni lam axaf ahadan wa ma rajawtu siwa arrahmani dil qadari ku dul kan wa ma rajawtu siwa arrahmani si qadar te yaakaaruma kenn ku dul arrahman yàlla mi dimbali ku ko soob nga xam ne yërmande bu doon téeméer la juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yëpp a nga ëllëg benn la yàlla wàcc jamono sëñ Tuubaa nee na kooku laa yaakaar kooku laay dimbale muy arrahman wa ma rajawtu siwa arrahmani di xadar nag mooy borom dogale ka nga xam ne lu mu bëgg mu am loola mooy am da ci dellu xaalu safihum li xafi na jëmal ja ina li say li sayqi li sayqi siidiya faxlil xayri fi lxabar nee ngeen man damaa wéra di ngir suubu yoonu Cheikh Sidiya yoon bu baax bi nga xam ne gaa yi ma di ko fekk ñu xàll ko jëm ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di dund tasawuf di dund melo yu baax yi yor seen i awraad ak seen i asgaar nee na loolu ma sóobu ba woon léegi ginnaaw daal man xel mu gàtt la am fa qultu xàllu sabili قالوا سفيه لقفوي نهجم الجينا الشيخ سيدي فهل الخير في الخبر قالوا سفيه لقفوي نهجم الجينا الشيخ سيدي فهل الخير في الخبر فقلت خلوا سبيلي واتركوا عضلي ما لي سوى طاعة الرحمن من وطري واتركوا عضلي ما لي سوى طاعة الرحمن من وطر طب xàll leen sama yoon jog leen fi ma jëm daru leen na ngeen xam ne lan mooy sama objectif aw ma genn bëgg lu mooy topp yàlla sama borom mooy sama bëgg-bëgg dane woon fee bu ma bëggee ba ma am yitte yàllaa koy faj léegi wax na luy yitteem wa rahmani min watar aw ma genn bëgg lu mooy topp yàlla sama borom subhanahu wa taala kon topp leen yéen xallu dandu leen xajal leen ma jóg xaar naa leen mënu dem léegi nag maa ngi dem ku wëy ma wëy ku wëyut ma waxe Cheikh Mahamadul goog sëñ bi ko xallu sabili muntaxaa ngoog sëriñ muntaxaa ngoog ku dem ma dem ku dem ma dem ku demul ma dem topp leen yoon wi xajal ma ma dem léegi engagé naa jëm ci fomm na mu ne kon maali si wallah ida ma la tuxayabani wa jaani lmalakaani dahri min wasar xoolal li mu xel aw ma aw ku may yaakaar buñ ma tàbbalee ci sama biir kër gu mujj ba ñaari malaaka yi ma fekk ma bu ma bàmmeel muuree kan moo ma fay fekk ku moom loolu mm-hmm. sëñ Tuubaa ngi lay wax ne yow mi nekk ci lu la neex di def lu la neex di wax lu la neex bu ñu suulee ba ñibbi ana kan moo lay fekk ci biir bàmmeel mm-hmm. nee na ba ñaari malaaka yi ñëw aw ma ku ma fa yaakaaral aw ma ku ma fay waxal ku ma yàlla sama borom ndax ñii ngeen ma bëgg a jëmloo mënuñu seen bopp dara lott nañ ci ñoom mm-hmm. maali gadan xayna asrail yaxbidu ni ruuxi nasiru siwa siwa mawlaaya fil azab bu demee ba malaaka mi jël si sama ruu te loo mën a def adduna mii loo top top topp loo ko bëgg-bëgg alal day taxaw sa wet booy génn adduna na la gaawal ci loxo laa jógee damaa war a dellu ci leneen damaa yàkkamti adduna mooy ñëw yor xet gu bon taxaw fi sa wet maa tax nga doon rayante maa tax nga bañante maa taxoon nga féttéerlu sëñ Tuubaa na waa léegi bu demee ba malaaka mi ñëw di jël roo gi nag aw ma ku ma fay yaakaar amul ku fay taxaw ku du yàlla sama borom kon léegi mënoo leen maa xëcc ba jëmee ma ci kenn ba tax ma jëm ci waaye maa lii xadan yow ma xasiri xalqi rabbun latifun siwa mawlaaya fil bashar xoolal ñett yim tegale alisi wallahi id mallahdu ghayyabani wa jaani almalakani dahra min wazari ma li gadan hina azrailu yaqbiduni ruuxi nasirun siwa mawlaaya fi lusuri tabbi bàmmeel ruug yi génn yowmal xiyaam bu jaam ñëpp dajee bu ñëpp dajee sa borom bi wax ne yowma tubla sarair fa ma lahu min quwatin wala nasir bis bi nga xam ne ñëppay teemu yow ma tubla saraa'iru li mu nëbbu woon dana feeñ mbindeef mu ne jàkkaarloog borom wa kulum aatihi yawmal qiyaamati farda ku ne jàkkaarloog sa borom mu laaj la sëñ Tuubaa nee na bu jaam ñëpp dajee foofa daal man aw ma fa benn bëgg ku dul yàlla subhaanahu wa taala mu nekk sama ndëmbi daal sama borom boo xam ne moo may jàppale mu ne kon yàlla mi nga xam ne mooy latif gis nga turu suñu borom yi ñu koy jëfandikoo ba mu tàmbalee wax na ne rahman wax na ne allah wax na fii ñëwaat ne rabbun latif yàlla mi ngi xam ne aji yërmande la ndax day fexe béréb bi nga xam ne yërmande yàlla dafay laaj jafe dafay laaj mu jëfandikoo turu suñu borom ba nga xam ne ñeewante la ak yërmande sëñ Tuubaa ni mën a ni mën a ni mën a waxee wax ju ju am solo ci yërmande yooyu waaye nag aw may jeneen jeneen bëgg bu fekkee ne dem naa ba ay xat-xat jàpp ma ci jamono ku ma cee xettal xaw suñ rahimun siwa mawlaaya ya zumar yalla may dimbali ko ko sopp ëlëk bu démé ba jamono jafé ci man mali idha dhu adnani wa azmanani ali ghadan yawm hashr al khalq kullihim رب لطيف سوى مولاي ذي البشر مالي إذا الضر أظنعني وأزمنني غوث رحيم سوى مولاي يا زمري تباسيو أليمانتير أمبتا موكو مومون سوليتين تسقير للأزمبور سنتوبا ليدكي سخ bëgguma lu may xam-xam bëgguma lay diine masa ko mësa bëgg xëppe alal baa ñu bëgg ko not baa ñu bëgg ko def nangam mu delu ci yalla borom subhanahu wa taala ba lim bëgg lepp mu am ko ci yalla kon li la Cheikhul Khadim taxee won té ñu war ko jang fofu sax la bëgg a señ sëñ ndax euh, xamna danaka daanaka li ñu cëriloon ci waxtu mi ngi jege fi mu bëgg maté euh wayé euh, jangat bu mujj bi ndax khassida euh, yiñ fi wax yépp ak ay bayit benn bu ci nekk mënes na ci lu bari bari buñ ko mengalé itam ak jamono ji ñu tollu dafa melni kon Euh, wax jooju foo ko indi rek day am solo waaye fii moom euh, mën nañ ne solo si dëgg dëgg dëgg moom feeñ na fi nga xam ne tolluwaayu jamono bi ak euh, yi xew léegi ci jamono jamonoy nitu nguur yeeg ñi nga xam ne ñoom lañ yilif ak yu mel noonu yaakaar naa lii mm, jàngat la boo xam ne bu ñu ko gënee saraa rek dana mën a indi ay ay kii yu bëree bëri. loolu dafa mm-hmm. bari xam nga fi ne sëñ Mor. Mm-hmm. la sëñ mm-hmm. seet mi la arrangé rek. ay photocopie sëñ Tuubaa yu bari am sëñ Tuubaa dafa waxoon ca njëriñ boo leen ma noppee gis ngeen di noppee gis kuy dajalew nit di leen jariñ te du leen jariñoo dégg nga baax li boo leen ma noppee gis ngeen di noppee gis kuy dajalew nit di leen jariñ te du leen jariñoo waaw menn kenn kenn tabaxutu néeg sëñ Tuubaa dëkk ci kenn defarut lal sëñ Tuubaa dëkk ci nangam nangam lu di njariñ da koo bàyyee ba noppi njariñ ñam yoroon mu ne boo leen ba noppee gis ne da gis ku ñuy dajalew rit waaye dañ leen di jariñoo waaye ku mën a jariñ du ca ne leen di jariñoo waaye kuy mën a jariñ du ca ne ñu ëpp ci ñi lay woo lañ lay xëcc addunay kese yi muy doon buñ ko wutee buñ ko amee fàtte la waaye baat bu daw yaram daf ma cee fekk dafa am ci xaside gi ay ba ña muy muy xaalu euh, safihun gi ak ak xaalu kan yu yéeme sëñ mool fa aw kayfa yabaaduni xubbal xutaami ilaa jiwaari mun duuru xuróolu shayatin ay waa ji bëgg poñu xiit bëgg alal nu may yóbbee ma dem fekk ji nga xam ne seen ëtti ëtti seytaane la ma di ko fréquenté léegi lu lu ëpp ci lu suñ Tuubaa doon daw dañ koy wuti def ko muy pouvoir léegi yow Sëñ Tuubaa moom ŋaññi la ci ŋaññi la ci ku fekk lu xaraam nga tabbi ca sëñ Tuubaa dala caa ŋàññi ñun ñun nag jàpp nañ ne ku fekk lu dul naka sa noonu boo ca nekkee yi de pouvoir la ndax dañ lay dagu dañ lay topp sëñ bi na ay waay bëgg poñaxit lu ma ko yóbbee lu mu bari bari da ngay tëdd ci armeel rek sëñ bi ne bëgg poñaxit bi ci des mu ne bu ma tàbbee ci biir bàmmeel ba ñaari malaaka yi ñëw bu sama ruu di rocc ko yow mal xiyaam buñ taxawee te yii yëpp mënta ñàkk yii yëpp mënta ñàkk kon faaw jàmm bi ñu laaj ko loolu kon bëgg poñe xiit adduna te sëñ Tuubaa dafa waxoon ñaari baat yii nag mooy li wér sëñ Tuubaa nee na ku jëm ci yàlla kese kese kese dara ruxu ko jërul gestu noo ànd ku jëm ci yàlla boole ci seytaane jëru xool tàggoo nañ kon nag noo ko mën a créer noo ko bëgg a waxee daal sëñ Tuubaa fii la nekkoon te moo gore ndax lii mu waxoon ca ba muy am fanweeri at di néew kattan mbooloo tëpp ko ba adduna wuy si ko lépp daf yi ci sëñ Tuubaa mësta tàllal loxo mukk nangoo jël lu yàlla bëggul wan ko ginnaaw alxuraanu karim rek lay jël taf ci dënnam lu mu doon wan na ko ginnaaw tàggatal nu lépp bu fekkee tàggatal nañu kon buñ koy wut nañ ko wut wutin wu rafet nañ ko jël jëlin wu rafet nañ ko wut wutin jërul ñaawoo jërul bonoo jërul nangam nañuy dellu ci sañ Tuuba nañuy dellu ci sëñ Tuuba àdduna bi amul lu ñuy wax lu nit war a doxee wala lu nit war a dundee te sëñ Tuuba waxu ko jàngale wu ko jàngale yii dañoo war di ko wax ci cérémonie yi wax ne fii la sëñ Tuuba nekkoon même bu niti yi toogee sax ñu wax leen parce que sëñ Tuuba jàngale na ñuy gouverner jàngale nañu war a nekkee buur jàngale nañu war a jëfandikoo boo gisee nit ñi ñu bari bu ñaanee du nangu nooy lekk la xaraam di ñaan du euh, dogguma la sax li nga doon wax léegi ci wàllu njàngalin bi euh, boo dee xool ba ci programme yi nga xam dañ koy jàngale fii ci école yi sax euh, mu jëm ci wàllu éducation nationale Euh, programme yu mel nii war na ci mën a dugg ndax lii tey boo ko doon xaw a euh, ci seen gisin ñoom ñu ngi koy wax poésie engage maanaam poésie boo xamante ni dafa am lu muy xeex wala lu muy dénoncé wala yu mel noonu maa ngi jégalu ci baatu nasaraan waaye kon day firndee rek li nga wax muy sëñ Tuubaa moom doy na sëkk am njàng lu kenn mënut a jeexal la sax ci gàttal waaw hmm. kenn mënu koo jeexal hmm. doy na sëkk ci njàng hmm. ci lim jàngale xoolal lii ni mu ko tëral lii tey boo yóbbu woon fu ne ci adduna bi jàngale danañ xam ne keneen ku xëcc leneen jëmee ko ci àdduna ak ñooñu àdduna yaa bëgg a tuumal sëñ bi waaye sëñ bi nekku fi waaye ndokk Mbàkke Balla ndokk jërëjëf sëñ ba mu bindee bal na fi nee na woon sëñ Masamba Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko li ma indi jamono mat na lu fi mat a naa ko ba mu làggi sama cër ngeen gis lu fi mat a wax wax naa ko ba mu làggi sama làmmiñ ngeen dégg li ci bind naa ko ba fi bu ëllëgee ku ñëw ne ca leneen yaa ca nekk waaye Ahmadu néew ci santaane wu ndokk bi mu bindee ndokk rek bi mu bindee bu bindutoon lii lu ñuy wax kon lu ñu xëcc jëme rek mën nañ ca jëm waye dañu bindal lu leer tay nak ba àddunay tukki ay sëñ touba di fi nekk yooyu ñooy doon sëñ touba yor mbootum sëñ touba wootu sëñ touba la sëñ touba bëggoon ci lañuy ñuy joxeñe la sëñ touba bëggoon ci lañuy jàngale du fi juk du fi juk mu Cheikhul Khadim momu dal moy ko xamne buñ ko amee xam nañu luñu am lama ci jexale ben benn naar daf noo waxoon ne khadimul Mustafa khawsul animi lisanul hal tashhadu lil khadim bi misli cheikhi lam nasma hadisa wala fi salif fi dahril khadim nee na yàlla ci moom lisaanul album day seere na ku mel ni sëñ Tuubaa amul daal di wax ne Serigne Touba moomu mooy koo xam ne amul ca ñëw yi enseigne ci ñii mujj a ñëw di niwoo yi sëñ Touba kenn la. loolu am naa la ko bind. soriwut ak ilay yaxaat la maanaam ñëpp nii yëpp am na dafa ñu la ma waxoon moo gën a yéeme ca ma nga nekkoon ca Liban. Hmm. borom jaabi karamatul awliya lu mu wax mu ne. nabaxaan yi lu yéeme na waxoon. Mhm. nabaxaan bi bi sëñ bi nekkee njareem dafa moom dafa nekk liban am jafe-jafe xaalis suñ borom ubbil kiiraay sëñ Tuubaa mu gis nabaxaan yi ca xam ne dafa am problème yi xaalis sëñ Tuubaa yónnee ko bi sëñ bi nekkee ci gi na laaj duggoon na xalwa laaj ana kan moo ëpp lu mu tagg Rasulullaah nee na yonente bee ko feeñu ne ku ñëw Ahmadou baa ngi ci géej gi nabaxaan nekkee njareem moom mu am problème sëñ Tuubaa yónnee ko xaalis bari mu tàmbali tagg sëñ bi هوى جارم علوما للإله وفضلا لا يمن والفضل للغير ممنون هو القديم الذي لوله ما سجدت على الجباه ولم تقرأ به النون إنما رأى فاته المختار من مضار وفاته قادر المختار مخبون waay waay waay xoolal kii njaareem la moon a xam-xam ak ngëneelul yàlla lu jeex daan na kii bu dul moom gars yi duñ sujjóot duñ jàng alxuraan ay ku rasulullahi raw gisoo ahmadou bamba perte nga ana bayaan yi bind loolu nu am ku mel ni toog di ko wër rek di ko wër rek naan sëñ bi sëñ bi sëñ bi sëñ bi sëñ bi nan jëriñoo si ahmadou bamba sëñ Tuubaa lépp ngi fi moom luñ bëgg mën nañ cee jot te jar ñaaw nit ki daa war a jàll te mbubbam du xottiku hmm. sëñ Tuubaa daal nee na gars yi ni miskin lotte ci seen mbir dañ lotte ci seen mbir bopp nañ wéeru ci yàlla nañ jël suñu bopp ko hmm. sëñ Tuubaa sëñ ko hmm. sëñ Tuubaa rek sëñ Tuubaa képp sëñ Tuubaa doom <laughs> sëñ Gana doy naa yam <laughs> ñi ngi sant bu baax nag mbokki téléspectateurs yi nga xam ne fu ñu toll rek ñu ngi bàyyi xel suñu télévision Touba TV waaye di gërëm nag euh, Euh, Serigne Mbacke Mbodj euh, mi nga xam ne moo lépp lu jëm ci wàllu production bi ndax lii moom moo ko réalisé wax dëgg yàlla ci am xelam la ci coordination la ci léppam la waaye di gërëm Serigne Jibril Ndaw directeur programme euh, gërëm Serigne Ousseynou Mbodj ak Serigne Jibril Khoule ñi nga xam ne ñoom itam ñooy équipe bu bi wax dëgg yàlla wane compétence mat sëkk waaye ngërëm loolu nag day àgg ba ci Serigne Cheikh Balla Sàmm mi nga xam ne moom moo jiite liggéey bi waaye li ñuy wax naan ab liirkat bu ab doxam neexee wajur waa jàpp ca wagg ya eh, loolu nag sëñ Mbackiou Faye moo ko moom ndax lepp itam ci mom lay wat eh, sëñ ganna kon dal ñi ngi delu di sante bu baaxa baax du ñak fi ak fan yu neew ndax mm, xaw nga nek ci ay xat-xat legi rek amna lo doon juñu ci lo wara eh, lo wara yëngu ci ni waaye di nga wat fi ci yeneen xasida ak yeneen yi borom xam-xam yo xamni ne itam ñu ngi ci dekk bu sel bi di Touba muy programme bu am solo bo xamne ne ci gërëm Serigne Mbacke mbo ci xalaat bi. waye serigne ganna waaw lii laa koy wax rek waaw góor waaw góor waaw góor jërëjëf jërëjëf jërëjëf mbóoj waaw góor waaw góor waaw góor jërëjëf jërëjëf jërëjëf parce que li tax ñu bari boo leen wooyee ñu sawar mooy liñ bëgg ci nga ne loolu moo ñu bari sawar te liggéey bi dafa am ñu ne ci seen i am ñu ne ci seen i saal di ko xool te mën nañoo bañ a jot si ci mbóoj waaye mën nañoo jot ci man baa jot ci keneen nga xam ne jamono bu nekk ñu ngi koy soññee di ko bàyyi xel mais wàcc gi ngeen wàcc fekk taali bii fi ñu nekk ngeen fekk leen ci li ngeen bëgg moo tax waaw góor waaw góor jërëjëf jërëjëf jërëjëf kàddu ko moom na ko ko yëtaale waaw ah, ah, di leen sant sëñ Mor Joxaane di hmm. jaajëfal hmm. sëñ Ousseynou sëñ hmm. di jaajëfal alaaji Mbakki yu di ko ñaanal baax baax suñu borom kàttanal ko te dëgëral ko ci liggéey bi yéene ji ak place taxawaay bu am solo bi ak képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci Serigne Touba ku ci dégg lu dul naka su noonu it nanu ko jéggal noo euh, ngi ko jéggalu ngir sëriñ Touba ku ci dégg luy noonu ñoo koy sante yalla ba yalla na dajee ngërëmul sëñ bi rek wala dajee ngërëmul sëñ bi rek mom dutu amati ben sik kon mo ngi leen di bax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon mbokki téléspectateurs yi ñi ngi leen di dig daje rek ëlëk ci benen jotaay wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bawur yaa ngi koy xëccok sëriñ ci kangam yi ak touba bi na ko merci adina ki laaxira di ko ku ne ne maa koy jël te naa goro ba xooli moom njaxate naa ko irkan jàngal te jublu xoon te wuur ciy kon cheikh ban banaa ko asbiyal hilaawo dahran wala ilaha illallah man yàlla doy na ma te doy loo naa ko maa hindakum yan fadu jàng naa ko man yàlla doy na ma te doyloo naa ko maa hindakum yéen fa du jàng naa ko billaay man xalal du tax ma jeng jàngal ma saaru hóot ndekon doo jeng